waa dee ko wax bisaabu xong laa ko gën a xamee dee ma wax bisaabu xong bu ko defee ma comprendre comme ah comme déggante bi neexul boo tuddee bisaabu xong rek ma xam ki ngay waxal. d'accord. léegi léegi yow ah, ah, ah, am eh, yow Aliou. defe naa micro mm. Amina moo gën a leer léegi yow naa nga ne nga ne nga ne bisaa deuxième tour lu mu wax. Mm-hmm. Mm, wax ko li li bu gan ngay wax ne yow micro Amina yow sa micro sa sa mm. retour moo gën a leer bu Aliou léegi wax ma deuxième tour lu mu wax moom. ah gisoon nañu daal ci euh, sortie bi nga xamante ni euh, moom euh, kii nii di Ousmane Sonko defoon na ko ca Grand Théâtre kaddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko doon ko yëgal ni objectif ba nekku fa maanaam mbir mi nekkul Grand Théâtre niki tey aussi mën bu ñu jëlee ci comparaison bi rek. Mhm. niki tey aussi mu bëgg dem soldat lam dem ci fi nga xamante ni moom moo di Grand Théâtre même si ñu jàpp ni daal dafa taxaw di natt boppam ak yi nga xamante ni moom moo di le premier ministre. ndeysaan ci ci gàttal rek saa Touba waxtu bi moo ñu xaw a dab. waay. Mhm. doomu aadama xam sa bopp baax na trop moo tax ba mu tuddee yëf yi gëm ma ko bogaandu noonu nit du gëm boppam nit daa war a xam boppam gëm sa bopp moo tax iblis lépp dal bugaan wartoon a tuddee affaire bi gëm sa bopp mhm. gëm sa bopp kooku ci lay doxal di ko wéyal xam nga tuddewoon nga fi Macky Sall tibb sa tibb tànk moom la tuddewoon Macky Sall fu Macky dem mu dem fa mhm. waaye ñun Ousmane Sonko de ko nar tibb tànk nar tibb sa tànk bàyyi tibb sa tànk bàyyi nag gone waru koo def bàyyi ci politique bàyyi ci politique laa wax bàyyi ci politique ku nar tibb sa tànk bàyyi ci wàllum politique da ngay sonal sa bopp. Macky Sall bi ngay wër di tibbub tànkam askan wi mën nañoo sax d'accord ak yow ndax askan dañoo deman ba bëggatuñu Macky Sall waaye nag wax dëgg yàlla Ousmane Sonko mi nga xam ne maanaam Sénégalais dañ ko bëgg mbëggeel gi foo ko su na ko man sax dama naan góor ñeeg jigéen ñi bu fekkee ni ñuy bëggee noonu la ñu bëgg Ousmane Sonko ku sëy mhm. nag bu fekkee Bougane barki démb Ndiaye Ousmane Sonko dem na fee mu dem Grand Théâtre génne Sénégalais yi ñu génn. Mhm, léegi nag yow bugaan nee nga yow ci sa jëmmi bopp léeg-léeg Ousmane Sonko yow nee nga Ousmane loolu ma defoon waru ko def yow bugaan nee nga da ngay dem yow ci sa jëmmi bopp nga dem grand théâtre pour lan pour jéem a nag sabab bopp gis fa fukki fukki gis fa mbooloo bu ko defee ñu ne bugaan am na mbooloo bugaan yàlla muy dogal askan wi mbëggeel gi muy def ci xol la yàlla dogalut ci sénégalais yi. ñenn ñi naan bugaan day génn la sees dama ne leen génnu bugaan méttiwut Aliou yow boo nekkee seen koñ. d'accord nga nekk gone nga nekk gone gu mën a football. d'accord mën a football moom teel taxut a tee dem terrain saa boo mënee football bu la neexee nga nelaw heure bu la neex boo demee saa boo demee terrain ñu génn ku mënul dugal la yow. d'accord waaye ñi mun dara ñooy teel a dem taxaw naan di di di xaar ku leen jël bugaan ngay dem ne yàllaa dogal mën a koo bokk. bugaan ñaari at a ngi fii 2019 nee nga bokkoo. d'accord gars yi nee gars yi parrainage ci lañ la xatal ba demoo. Mm-hmm. bugaan ngay dane Ousmane Sonko gëmal na la nga jotoon a amal kas mbooloo man saa Touba man. man wax sa xalaat def naa ko ci sab télé man. d'accord mooy ba ma naan ba ma naan ba ma naan jot na sëkk ñu am ci réew mi la yoo xam ne képp ku ñu joxati nga jiite Sénégal boo toogee ba sa mandat jeex dañ la bala ngaa génn pale nañ la càmbar yaa ngi nga àndaloon. Mm. xalaat boobu waxoon naa ko seen télé boobu. defe naa ñetti yoon ñetti yoon yoo xam ne seen wax sa xalaat dugg naa foofu ngeen accepté ko nga xam ngeen ne xalaat Issa Touba xalaat yooyu wér na moo tax ngeen jàllale ko ndax saa bu ngeen waaye jamono jooju ma doon jàll sama xalaat man buggaan da nga maa trahir. Hmm. ndax lan ma trahir mooy man da nga doon gëmloo Sénégalais yi ne da ngaa bëgg Ousmane Sonko. da ngaa gëmloo woon Sénégalais yi pas sax góob gëmloo Ousmane Sonko boobu boobu sax kàddu googu sax googu intéressé ma ci dëggantaan gi ci gën a intéressé mooy anti système bi nga doon gëmloo Sénégalais yi. Hmm. Sénégalais yi gis na yaa Ousmane Sonko yéen a fi kiif kiif ci nu ngeen di xeexee mooy mooy système bi ngeen bëgg mu jóge fi. d'accord ñuy gis say jotaay ak jotaay Ousmane Sonko. Mhm. ñuy gis nga yow si jëmmi bopp yaa daan tàgg Ousmane Sonko ci njàmbaar ci xam-xamam yaa ko doon wax. léegi nag même Bougane Gueye Dany moomu bu fekkee ne sénégalais yi nga xamante ni ñoo bëgg Ousmane Sonko wax dëgg yàlla man saa Touba ku bëgg 2STV bëgg naa la. d'accord euh, ku ma ku may wan ne ku may ma ku ñëw ma wan ne man damaa bëgg Sa TV Desa ko wan man dama naan waaw diw de bëgg naa ko ndax daa bëgg Desa TV te Desa TV dama ko bëgg. macha allah ma gëm ne bëgg nga Desa TV ndekk da ngaa xëy xëy trahir Desa TV kon man boo bëggee dégg dëgg bëggeel gi ma amoon coofee la kes néew te ginnaaw yàlla Desa TV taxoon maanaam maanaam boo ma rombee wax ju soof doo dégg maa la ko wax. te boo gisee bugaan gee daan ni muy dexe diggante ma Ousmane Sonko wax ji la ci xaw a rafet boo gisee mu dem ba ci biir ñaaw mooy Bougane daa dem ba gëm ne Sonko du dem amul kenn ku bokk ci parti bi kuy dem bu defee ñu ne waa léegi Bougane a fi tane nañ ko nañ ko ci la Bougane ngay dane commencé génn di bu xolam bi di bon di bonal ak xol commencé wax ay waxam yu ñaaw Bougane ñun miin nañ wax yu ñaaw d'accord mënoo wax ñu uh-huh. uh-huh. wax wax nañu ko ma ñëw Aliou Aliou ma ñëw Bougane uh-huh. bisaab waxtu bi moo waxtu bi moo moo ñu ko caatoo waa Mhm. ma ne Bougane ngay dani mënul perturber Ousmane Sonko procès bi ñu taxaw ne Bougane mënu ci dara Bougane mënul yëngal tànk bu Ousmane ci wàllum sango ba set soli ak gaay na duñ la jël maanaam programme yi gën a sëkk dana da ngaa war a football yow nga ngay dani mu bokk ci élection kenn du dégg ci réew mi yow mënoo bokk bu pare gën a réew làmmañ seen télé ba nag wax dëgg yàlla gëm naa ne gaay yi doon naa wax na am nañu farité waaye télé ba télé dof dëgg lañu ndax te lay dox mënumaa mënumaa nangu buggaan ngay dane bërki démoo njaay géey original gis naa ko mu taxaw ak waajooju mooy borom ndax yi di soo yu na ko maa nekkoon sa patron mu di ko wedd te waxul dëgg mu nekkoon patron ñoom ñaar ñoo doon bokk nekk ci plateau yi di défendre Ousmane Sonko ñoom ñoom ñaar ñooñu ak borom lax yi di yu mel ne jongama ñoom ñooñu ci seen jëm bopp ñoo taxawoon di di maanaam di défendre Ousmane Sonko kon léegi boo défendre Ousmane Sonko bërki démb tey nga ñëw bëgg bëgg ne Ousmane Sonko nangam kon day mel ni la ma waxoon mooy bugaan lim doon wane na daa bëgg Ousmane Sonko daa jàppan ne Ousmane Sonko ay ñoñam sincère ñu bu ñu demee ba maanaam Ousmane Sonko suñu diggante moom am ñu candidat ci moom ñu tayaay ñu kuy ñëw di jéem a xoy waa Pastef ay oto ba am néew wala ko li ko bëgg gës néew ab xaalis lañ ko toppee waaye bu doon ci waxi nit donc bugaan waxu fi benn wax waxu nit saa bu waxee ba daanal nga jàpp ne dafa wax bu ngeen di wari dof dëgg dem leen kër dof ya ndax waxi dof dong saaga woo xam ne Macky Sall lañ ko saaga bërki démb nga xëy saaga woo xam ne Macky Sall lañ ko saaga nga jël saaga ko euh, koo xam ne daa tax wax ak bokkum benn waay bu tu benn waay bu sant bokkum xaw ma nga ko kii mais xanaa ndof mën ta na yàlla may bugaan ngay dana xolub muñ xam ne wóor na borom daru bu fekkee nii la bëgg a opposé woo bugaan fit na maanaam xam nga benn waaye Mor Ndiaye daana wax ne ak ah, Satouba fitna mënta yi weesu waa diiga gi lay wër waa diig waa diig képp ku ñuy wër foo yenn doo faama na wax nga dëgg de diiga gi lay wër doy na fitna waaye bu gaan ngay dane jéem a di Ousmane Sonko doy na fitna ndax bu Sonko génnee nga mer bu waxee nga mer bu noppee nga mer mais ñun fu ñu jëm ak bu gaan ngay dane bu Sonko waxee mu mer bu Sonko noppee mu mer bu Sonko génnee mu mer mbooloo mi yàlla may Ousmane Sonko la bu di bañ Mm-hmm. d' accord euh, euh, jërëjëf jaajëfal ko bu baax moom sa Touba ci kàddu yi nga xamante ni si daan na koy euh, yëkkati mu nekk lu am am solo loo xamante ni si daan na koy yëkkati moom sa Touba continué leen ànd ak ñun 77 914 64 93 salaamaaleykum mbokk mi. salaamaaleykum. salaam. bi ñu ngi lay nuyu bu baax. vraiment Mm-hmm. Euh, man de man daal débat ngay danee Bougane su amee mm-hmm. nañu wax Bougane euh, xaalis balaa muy dem yàq xaalisam di naan day toppandoo Sonko comme Macky Sall dafa juum xaalis boobu na jël dem fay impôt liggéeykatam entreprise am dox moo ko gën a di yàq xaalis bi impôt te impôt à la kulli président wax na ko bi da ko fay forcé loolu du tax mu génnee bu foog nii wala dafa mu jël xaalisam fay ay nit ñi dinañ lekk xaalisam dafa foog ni nit bu ñu gisee grand théâtre feef looloo tax daal ñoom joomaay dinañ dëkk leen ci ginnaaw pour impôt comme li mu doon sobal Macky Sall ba mu koy baal impôt bi ñii impôt bi da koy fay ba même même bu demee ba am cent ans cent cinquante ans bu bu ko fayul sax bu dee sax dina ko fay loolu na xam loolu na dem fay impôt mi mu bay ay théâtre yi muy seet yooyu man dama foog ni Bougane est-ce que amul problème mentalité parce que entourage dañ ko war a yedd quoi parce que da yoon bi muy jàpp yoonu folklore lay jàpp te muy dugal boppam ci kamb ji rek impôt bi na dem fay impôt balaa muy woote ay garanti garanti kooku nit koo xam ne moom demul musul dem élection man dama xam ne Bougane li ñuy wax ci moom ñu parce que yoru ñu ko sénégalais yi du origine sénégalais yi li ñuy wax parce que man je vois pas que Bougane ban intérêt am ay théâtre di jouer ay théâtre ay folklore yu mel ni yow yaa ngi am impôt li nga war a fay exemple mooy loolu nga naan da nga wuti réew nga naan yow yaay chef de l'opposition nga ñu lay boru impôt kon yow buñ la joxee suñu réew kon kenn du fay impôt réew mi day daanu mais bu kan dafa foog ni xale yu ndaw yi sax xale yu ndaw yi dix ans sax ñoo ko ëpp xel quoi. Ah, mais balaa muy dem cent dem fay impôt bi mu dugal avance bi moo gënal hmm. parce que day yàq xaalisam rek loolu du tax mu dem fenn franchement na na na na xool boppam quoi parce que fi mu dugal boobu ñooñu duñu ay moromam. Mm-hmm, parce que président leeral na ko nee na impôt kon du ko baale te Bassirou Diomaye Faye amul suñu président amul droit baale kenn amul centime impôt te il a été ferme dañu foog ni seen théâtre bu ñu fay bu demee grand théâtre xam nga ni ay millions lay dépense billaay maa ngi nañu partager vidéo ñaa ngi lañ seen gouvernement bi bu ñu ci semaine bi rek dem tëj entreprise am parce que xaalis bu muy dem di sànni Grand Théâtre ça veut dire que dafa mel ni day xooxatal sénégalais yi xaalis bu muy dem yàq ay Grand Théâtre di louer ay ay nit di kii ay ay sonorisation wala kii yooyu dépense ay million te yaa ngi yore mais loolu yàpp sénégalais yi da ngay saaga sénégalais yi gouvernement bi daal dañoo war a am fulla ñi taxaw ci kanam buuban wax ko dëgg won ko yoon won ko dëgg hmm. su fayul impôt o bu mu ko de ñu tëj entreprise am ñu xool ne est-ce que dina continuer di def ay théâtre yu mel noonu ma réew kenn du ko fooyee quoi caaxaan caaxaan bi mu nekkoon ci gouvernement Macky Sall caaxaan boobu jeex na réew mi ci digg lay lay dox na xam boppam mu dem fay impôt moo gën a muy gën a mu dem ay organiser ay concert wala ay xawaare ci grand théâtre te lu ko am du ko impo du ko indil dara du ko apporter dara dara dara xanaa mu yàkkal ko président Diomaye Faye na nga ne bu bu bugaan su génnee grand théâtre semaine boobu nañu leen dem tëj tëj entreprise am parce que jé bugaan li muy def ni jar sañu sax ñu ko prison or fii bi ma nekk ni bu doon bugaan li muy def ni bu def fii la kon yàgg na prison bu yàgg fii kenn du baale impôt ma la ci fii impôt boo ko yoree individuel yow mii sa bopp individuel boo dee sax sa bàmmeel sax dañ koy tëj d'accord sa waajur yi sa seen waa kër yi sax du ñu dem ci taxaw ci sa bàmmeel dañ koy tëj tant que fay ñu impôt bi te soo fay chaque fois chaque chaque mois day yokku hmm. impôt moo taxaw réew mi soo gisee Europe amuñu dara ci ressources humaines ressources kii mais impôt yi la ñuy sukkandiku moo tax ñu mën a dimbale ñun Afrique yoo xam ne moom ay ñun ñu yor lépp ñu ne Sénégal am na or am na zircon am na pétrole am na daal am na lépp Afrique noon la Afrique dafa riche ay ressources mais on est pauvre des dirigeants ba ñooñu seen ressources impôt yi ñuy fay ñu ñoo ñu dimbale. ñàkk fayda ñoom ñu mel ni ñoom buggaan ngay façon yooyu ñooy daanal réew mi ngeen baal ma ci kaddu mi mais bu bàyyi joué théâtre yi muy joué nii na dem fay impôt su fayee impôt ba pare su bëggee mu dem xawaare mu fanaan ci tali di xawaare loolu kenn yoonu kenn newu ci mais dafa yoroon sénégalais ñëpp man la ak yéen ak yeneen yi suñu xaalis la jël képp ku de ci hôpital ci yoon gi buggaan ngay il est responsable parce que impôt war na ko fay président ñoom ban légitimité la ñu am ba ñu bëgg a bañ a fay impôt am na ay hôpitaux yoo ay ay clinique yoo xam ne clinique privée dañuy sauver ay bakkan di faju di fay impôt est-ce que du ñoo ñoo gën ay journalistes yu 24 yu mel ni ñoo xam ne dañuy taal réew mi amuñu benn importance si réew mi actuellement yéen seen ligne bi presse en ligne moo taxaw moo yore Sénégal te moo yore adduna bi yëpp boo demee ci Europe fu ne presse en ligne. moo yor lépp internet moo yor lépp télévision yi jaratuñu tout te fu ñuy dem ni dañuy dee amuñu dara dara kenn xoolee seetaanatu leen moo tax ñuy fekk nit ñi ci YouTube ak ci yëpp ñu dem daal on a presse ñun ci patron presse yi ñëpp dinañ daanu. d'accord jërëjëf. parce que yeneen yore avenir Afrique yéen. jërëjëf jërëjëf. Mhm. donc Bougane na saisir boppam. na bàyyi ay yëfu caaxaan yooyu bu mu kokatal Sénégal bu mu saaga sénégalais na fay suñu impôt yi balaa muy organiser ay grand théâtre ay ñàkk fayda yooyu. d'accord merci jërëjëf. jërëjëf defal ko bu baax ci kàddu yi ko dinañ ànd ak ñun 77 914 64 93 ngeen mën daal di bokk ci waxtaan bi euh, li nga xamante ni si bokk na ci li gën a fees mbirum visite bu euh, premier ministre Ousmane Sonko foofu.